salaam salaam salaam gars yi ah siyaar siyaar siyaar siyaar siyaar digab naa leen bàyyi na nga am jàmm alhamdulilahi rabbil alamin man maa ngi am jàmm di leen di nuyu bu baax ñi nga xam ne sama ay soppe lañu hmm, comme niñ koy waxee rek gis ñu si réseau sociaux yi ñu yàgg di live li ñuy live di dugg seeni biir xol waaw ñu ñuy déglu di kontaan bu ñu juumee it souvent ñu woo ñu si suuf ne Kaliphone ni nga waxee nee nga waxee ay doomu aadama lañ mën nañoo juum nit motul. ma leen di baat bu baax da leen di kontaane di leen di ñaanal jàmm di ñaan jàmm sunu réew di ñaan salaam sunu réew gudd fan ak wér di ko ñaanal ñëpp. donc gis ngeen léegi sax maa ngi titré ndax ñu live loolu yàgg naa ko di def jékki-jékki rek bind ñu live wala bu ñu live gars yi ne ma woy live wal ñu ne noo non xama mais yenn kañe yi maa ngi gis yenn nit. Euh, ba ci sax biir APR excusez ma def euh, non dara ok merci maa ngi gis fan yii yëpp nit yu nekk si benn bokk yaakaar wala APR di mer di naan ay Kaliphone daa jaay ngorom ak ay dignité ak patati patata man bi may am ngor ñu bëri ñuy wax loolu boobu seen ndey ju doogul bu dee ba ngeen dégg-dëgg bi may am sama ngor ñu bëri di commentaire di naan kalifa da nga jaay sa ngor boobu seen ndey ju dogut bu dee ba ngeen dégg dëgg bu dee baax kenn gënumaa baax bu dee réew it kenn gënumaa réew ñun ñëpp ay sénégalais lañu fii mosuma fi jaay sama ngor benn parti laa mës a bokk mooy parti bu APR ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom ba ay jamono ma amoon ak ñoom ay kalang-kalang ay difficulté nekk sama wet bokkaatu benn parti politique ba yàlla defee jàmm am salaam am ma ñëwaat toogaat biir APR ba léegi def ma déclaration ne dama génn APR ba léegi it ma benn parti bu dul APR bi ma nekk bu dee nag toog fii di wax si yenn ministres yi sama ay dëgg seen yenn militant loolu naqari leen di ngeen yàgg mer di ngeen yàgg mer man sama dëgg gii moom laa judduwaale bu dee seen ministres yooyu je pa te amu leen dara si ñoom lu dul ay tiset ak vax ak sandus ñoo leen gënal seen ndey gënal leen seen baay man du ma genre boobu man ministre ak dàll bi may sol laay yemale ay doomu aadama lanu doomu aadama laa cër lanu sekk rek jàmm ak salaam respect mais man ministre gënu ma ndey gënu ma baay bu ngeen jàppee ne ministre wala directeur dafa leen gën ndey wala gën leen baay loolu jël leen yéen ñi di toog si groupe whatsapp yi di yuuxoog di jooy ak di maral ministre taatam ak man je suis pas dans ça ministre bu liggéeyee damay ne jokko njal monsieur le ministre good job bu ministre defee naka sudul noonu ma génn ne ministre deful naka sudul noonu ministre encore une fois nit la directeur nit la président de la république sax nit la man noonu laay dundee noonu laay doxee fan yi nag ni ma def sama live barki demb ñu bëri woo nañ ma ñii bég nanu ñii mer nanu man xooluma luy bégal nit xooluma luy merloo nit man naa wax sama wax jóge fi toogee na le ku mer sa problème la ku bégit macha allah man noonu laay doxee est-ce que nag may dégg lan ngeen bëgg benn jomaay falu ma commencé fii naan damay sand xeer jomaay ak nii kanaa déedéet dama koy ñaanal réussite man noonu laa mel man du ma nit boo xam ne dafa radikal néew ma jomaay laa àndal ànduma ak moom ànduma ak Ousmane Sonko bokkuma pastef te duma mas a bokk it pastef bu nekkee suñu borom incha allah nañu doxal seen dox ma dox sama dox mais loolu signifie pas damay nekk ay ennemi ak ay nitu pastef man ñi ma am xarit ci waa pastef amuma ko xarit ci APR ni ci benn bokk yaakaar li may wax ak téléphone ci waa Pastef ak nit yi nga xam ne dañ may gis di ma bëggee ci Pastef amut ci APR siis ak soxor Cheikh Yérim Seck waxoon na ko moo nekk biir APR moo tax APR bougéwut dama ne encore une fois sama relation ak yenn nit yuy mbubboowoo Pastef la ñu bokk muy pompiste bi jaay essence nga xam ne bu ma droitee mu bëgge ma kii di jaay moto bu ma ñëwee place di jënd moto mu bëgg ma kii di jaay téléphone bu ma ñëwee mu gis ma ne Kaliphone maa ngi lay bëgg leer na ko leer yàlla Pastef la bokk loolu du politique koy dindi man maa weesoog politique loolu ànduma ak Ousmane Sonko ñoom la yàlla jox réew mi nag dam leen di ñaanal réussite totale parce que réussite réew mi mooy sama réussite tey bu ceeb bi bu ma ñaanee gars yi am defet saaku ceeb bi di jar vingt mille dem jari cinquante mille kan moo ko yëg du man bu ma leen ñaanalee ñu am defet bu ñu tabaxul école sama doom fu muy jàngee ëllëg bu ma leen ñaanalee defet bu ñu tabaxul hôpital bu ma feebaree ëllëg fu ma jëm ñoom ñoo ayee ñoom ñooy nguuru dem leen di ñaanal victoire yal na leen yàlla may ndam yal na yàlla oyofal yan bi man noonu laa mel de kuy xaar xaar Khalifa naan way yàlla na ngeen am defet patati pata du ma genre boobu duma nekk ci biir gaal gi di ñaan gaal gi yàlla na diig duma ma genre nit boobu encore une fois samay wax dafay leer ànduma ak Sonko tey ànduma ak Jomaay tey xalamaluma leen tey xalama leen suba ñii ñu àndaloon di liggéey ñooñu nañ leen xalamal ñii ñu àndaloon ba gars yi di opposé ñooñu nañu ànd ak ñoom liggéey mais sama bopp maa moom sama bopp man maa ngi fi ma nekk maa ngi biir APR te APR bii ñu jëm yéen ñëpp nekk APR xam ngeen si tas bu tasaaroo bu tasar fa la jëm gis ngeen yenn si ay responsable ñu ngi génn di xarab président Macky Sall yeneen ci ay responsable di xarab Amadou baax ñeneen di xarab keneen xam ngeen ne loolu fu ñu jëm ñëpp xam nañ ñu soriwul na ku ne def instant bi sauf qui peut ñi mën a ànd ànd ñu mënut a ànd bañ a ànd te maa ngi toog bopp euh, jàpp sama bopp APR laa nekk ba gis ban responsable bu doy moo ma doy ma ñëw ànd ak moom liggéey jamono ji Amadou Ba laa àndal moom lay dox pour liggéey incha allahu rabbihi pour muy clair ànduma ak jomaay ànduma ak pastef bu ma toogee fii ne jomaay di ko ruube wala pastef di teg sonwu pastef dama ni teg musique gu Ousmane wala teg musique gu jomaay lan lay wàññi si doomu aadama seen xol yi yi ngeen yori man nekk nekkuma si duma duma duma duma duma duma genre duma genre nit boobu quoi yore xol bu bon ah teg musique gu Diomaye Sonkoy Diomaye Diomaye moo di Sonko loolu lu muy daggee xolu nit loolu ça veut rien dire Sénégal la nu nekk dañuy yenente jàmm yenente salaam sëgëm Sonko bi doon naan président Macky Sall dañ ko war a def comme Samuel Doe comme Sonko mi doon wax nañu délogé président moo mën a dem toog ak président waxtaanak ak moom ñu reetaan ñu fotow ñun militants yi yoo xamante ni amu leen lu dul tiset amu leen lu dul vax si nguur lan ngeen di soxorante seen biir di mer di naan way euh, dignité patati patata man ku ma ëpp dignité seen ndey maa leen di dignité yéen ñi di naan waxu dignité seen baay maa leen ëpp dignité yéen ñi di wax waxu dignité lim leen bëgg wax encore une fois dama ne man bokkuma Pastef xaaruma pour dugg Pastef xalama lu ma Pastef euh, maruma taatu ginnaaw waa Pastef mais bu Pastef toogee fii Sénégal ñu nguuru am naa droit teg musique Sonko kaffooree en tant que sénégalais sénégalais ma jël ko style comédie di reetaan waa Pastef sax noonu la ñu gisee naan Kaliphone mu ngi ruubee sunu waa ji mu ngi ree mais yenn si nit yu nekk Benno Bokk Yaakaar wala yenn nit yu gis nekk si biir APR di naan way Kaliphone dafa dafa dafa dafa dafa transhumé patati transhumé ma dew ma fen ñu bëri si cadre Pastef am na ñu ma contacter depuis keroog Kaliphone fii sa kër la ñëwal Pastef yaa ngi dégg maa ngi fi ma nekk na waa Pastef nekk si jàmm de toute façon man damay ñaanal Pastef am réussite Sénégal gi ñu nguuru ko si jàmm ak salaam ñu ñaan jàmm suñu réew pétrole bii di ñëw gaz bii di ñëw yàlla dimbali ñu ba ñoom lu ñu mbébét mu am réussite total bu ñu liggéeyee réew mi incha allah rabbi 2029 yàlla na gars yi amaat mandat ba deux mille cinquante bu dee liggéey nañu réew mi bu dee liggéey ñu réew mi nag deux mille vingt neuf bu jotee beneen sénégalais ñëw toog loolu mooy Sénégal man du genre nit boo xamante ni damay far parti sàngam ma jékki-jékki gis parti bee mu ngi dox may ñaan damay jël jaasi di comme nu ko yenn golo doon defee bu teer ñëwee ñu ne baaxul bu stade ñëwee ñu ne baaxul BRT bu ñëwee ñu ne baaxul man je suis pas de so genre man bu Bassirou Diomaye fay defaree teer dinaa ko saluer bu ñu wàññee saaku ceeb bi dinaa ko saluer bu taxawee yeneen université mu tabax ko dinaa ko saluer bu xeex amee si dëkk bi dinaa xam lan moo andi xeex bi bu dee du dëgg du yoon dinaa si xëpp kaani comme ni ma ko doon defee loolu mooy Kaliphone encore une fois beneen bi problème aji Sarr Adji Sarr sànq laa coupé moom démb si guddi ñoo wax ba quatre heures du matin Adji Sarr encore une fois ku leen ne génn na réew mi barki alxuraanul karim mu ngi leen di nax gis naa siste Françoise Hélène Gaye mu ngi live Adji saar dem na tàgguma pati pata Adji saar ba may mujj ak moom bu doon téléphone bi may live appel vidéo laa mujj ma def ak moom démb mu won ma fu mu nekk demb demb sànq ba ñuy mujj jokkoo sax daf ma ne kalifan il faut nga ñëw fi ma nekk comme ça ñu def live barke yonent yàlla Mouhamed ak ajuma ci bu doon defuma appel vidéo ak Adji saar ba xam fii la nekk du ma toog di waat ci weeru koor gi ñu nekk ne gis naa saar Sarr na ma fu mu nekk salaatul fatiha heure bu jotee pour mu génn réew mi dina génn réew mi Adji Sarr nit la war na mën a dox comme tout les sénégalais jàmm moo ñu ñor jamono ji sunu Sénégal salaam moo ñu ñor sunu biir Sénégal Adji Sarr li ñu amoon ak moom coowal deux mille vingt et deux mille vingt deux deux mille vingt trois loolu tàbbi na ci deux mille vingt quatre ba na dem ñu jublu si l' essentiel yi xool nu ceeb bañati yokku nu suukar bañati yokku nu dawlin bañati yokk nu courant toogatee bañ a kuppeeti nu ndaw ñi ñu ne dinañu am liggéey ñu wutal leen liggéey instant bi nag lu may mën a wax waa PASTEF. yéen a doon toog di wane lacrymogène naan jël nañu xaalis dëkk bi yëpp jënd nañ ko lacrymogène bëgg naa nguuru Bassirou Diomaye fay ba ba muy jeex bu benn lacrymogène tàq gis naa étudiants yi bu ñu gréfoon ñoom dàmbooj génn taxaw fii di naan woy université parti pata bëgg naa fii ba nguuru euh, Diomaye di jeex bu université bi grève bu infirmier yi grève bu docteur yi grève bu enseignant yi grève bu expresso grève bu sonatel grève bu kenn grève yéen a woo nit ndaw ñi dootuñu jël gaal dem bitim réew fii ba jomaay di wàcc pouvoir bëgguma gis benn ndaw jël gaal gi dem yéen a ko waxoon bëgg naa it yéen ñi nekkoon diaspora ne bu jomaay faloo ngeen ñibbisi bëgg naa ngeen commencé posté vidéo yi ne yéen ñëpp ñibbisi ngeen encore une fois xam naa ne loolu du mën a nekk jomaay saaku ceeb bi di jar vingt mille kuy xaar mu ñëw andil la ko dix mille fii ba l'an deux mille cinquante sept mënul nekk jomaay facture courant bi di nekk cinquante mille ku yaakaar mu ñëw defal la ko trente mille wala vingt mille fii ba l'an deux mille quarante deux munu ko jomaay ku yaakaar naa ni dawalkatu saret ba dina ko wàccloo saret ba mu ñëw taxal ko costume muy xëy bureau fii ba l'an deux mille deux cent mille deux mënut nekk jomaay ku yaakaar ni mbëri doon nekk ci arène yi di bëre dina ñëw dugal leen ci bureau yi fii ba l'an deux mille cinq cent mille an du mën a nekk encore une fois ci ay manipulation la gars yi nekkee woon de toute façon xam ngeen ne jomaay du fi def lu fi président Macky Sall defut ñu ngi koy ñaanal nag yéen bi na oyof toll ñu ngi koy ñaanal saaku ceeb bu mu dem trente mille ñu ngi koy ñaanal kilo mburu bii nekk ñeen fukk bu mu nekk deux cent cinquante de ñu ngi koy ñaanal paketu suukar bu mu nekk mille cinq cent de ñu ngi koy ñaanal encore une fois dama ni ngi koy ñaanal buñ toog fin du mois dégg salaire yi ñu ko de ah président Macky Sall bàyyil na leen teli bàyyil leen courant bu leer bi bàyyil leen xaalis ci keesu état bi donc jamono ji seen ginnaaw bandang liggéey rek a des amuñu jot tamit comme yi ngeen toog fii di maire di soxor di naan ay euh, nañu jox Tahirou Sarr ministre de l'intérieur wala étranger ay guinéens dañ leen war a génnee réew mi dama jublu leen si liggéey bi guinéens yi Sénégal balaa muy nekk Sénégal ñu ngi fi te dañ fiy continuer di nekk comme nu sénégal yi nekkee France comme nu ñu nekkee Gambie comme nu ñu nekkee Mauritanie comme nu ñu nekkee Europe comme nu nekkee Asie àdduna na ñëpp nekk fu kon waaye neex na nekk mais liggéey ci respect ñu bëri di taal seen TikTok wala di dugg Facebook di commenter naan Guinée dañu far a génn boo demee seen baay mu ngi yoreel Guinée bi saako ceeb boo demee ñu si bëri seen papa Guinée bee leen loué yoral lañ leen cinq mois de salaire nit ki lijjantil sa bopp lijjantil sa liggéey nga bañ a lijjanti Guinée bi Guinée bi na nekk si boppam Guinée mu ngi toog fii bu ñu nee agresseur doo jàpp Guinée ba bu ñu nee caga yi doo jàpp Guinée ba bu ñu nee jaaykatu drogue ba doo jàpp Guinée ba bu ñu nee ku sàcc alalu réew ma doo jàpp Guinée ba Guinée yi lu ñu def ñëw liggéey ci réew mi bu ñu lekkee tey mandarine Guinée tax bu ñu toogee tey di jaaru si sedd bi këriñ Guinée tax bu ñu lekkee tey di eh, ay melon yi kenn xamut Guinée tax bu ñu toogee di dem ci bitig ba naan ci jàllo jaay ma ceeb Guinée yi la nag ne lijjanti sa bopp nga liggéey jomaay moom réew mi ku dul jomaa moom réew mi c'est le président de la république encore une fois pour seen xeli xasax dangang yooyu ngeen di doxee di naan way avec jomaay tout va changer jomaay ne va pas changer lu Macky Sall mënut changer bu dee jàng Macky Sall ko gën a jàng bu dee nu ñuy andee alal Macky Sall ko gën a xam nu ñuy andee alal fii ngeen di comprendre nag politique mu ngi noonu ana tey ndaw ñi dee woon ndax naan Sonko ak Macky Sall ay ennemi lañu ana ñii si seen tànk damoon ana ngeen tey yéen a ngi doxee beek ana ñi nga xam ne seen loxo dagg nañ ko si ana ñi nga xam ne seen bët dëñ na tey mu ngi noonu Sonko moo doxal boppam ba biir palais def kot ak kott ak président Macky lu toog ñuy waxante téléphone di añante am na tey pourtant ay njaboot yoo xam ne tasaaroo nañu parce que kii APR la nekk kee Sonko la nekk am na ay militant Sonko yoo xam ne meleer nañu yenn nitu APR parce que rek ànduñoo ak Sonko politique encore une fois nit ku ne libre nga nga far fu la neex picc day taxaw si garab kàdd gi jékki-jékki dem si garabu guy gi moo moom boppam waxuma la ak doomu aadama fii nit ku ne libre nga nga far fu la neex si démocratie si liberté kenn du forcer nit ñëwal bëgg Ousmane Sonko Ousmane Sonko kenn bañu ko à tank que Ousmane Sonko mais sa façon de faire sa politique man si loolu laa ànd toon sama yeneen i junni sénégalais si loolu la ñu ànd toon mais bu dee sénégalais ak sénégalais fu ma gisoon Ousmane Sonko di xeex ak Gambien Ousmane Sonko laay faral. bu ma demoon bitim réew gis Ousmane Sonko di xulo moom laay faral en tant que sénégalais sénégalais mais côté politique bokkunu vision li muy ñoddi ñoddiwu ma yéen a ko topp nag am ngeen junni plein droit ngeen topp ko encore une fois man lii kenn du ko bañal pour yenn kañe yi toogoon fii ak ay yooyu Kaliphone waa Pastef yi Kaliphone man je ne suis pas de Pastef je ne suis pas de Ousmane Sonko je ne suis pas de Bassirou Diomaye Faye je à Paris je reste à Paris je dëkk Sénégal je suis sénégalais liggéey bi day continuer bu Bassirou Diomaye fay liggéeyul ma ne ko Bassirou liggéeyoo bu liggéeyee nag ma saluer liggéeyam yàlla na xëy suba na andi trente terre ma jaajëfal ko si terre yi mu andi yàlla na wàññi dawlin bi ma jaajëfal ko si dawlin bu mu wàññi yàlla na étudiants yi nekk université yi am seen i ak seen yëpp ñoom ñëpp yàlla na nu xëy suba am liggéey mais bu nu amul liggéey suba rek ma dal si kawam bu ceeb bi yokkoo rek ma dal si kawam bu dawlin yokkoo rek ma dal si kawam bu ma gisee ñu ne ba gaalu xale jóge nañu tëngéej ñu ngi dee ca yoonu Maroc ba ma dal si kawam saa moom nit mënuma ne Kaliphone bul def loolu danaa ko opposé si fulla ci fayda ak ci ngor pour encore une fois ñu doon way Kaliphone dem na Pastef Kaliphone nguur gi sax daanoogul man duma genre nit yi may gis ñu naan e waay patati patata man duma genre boobu de man sama fulla ak sama fayda laa am moom laay continuer di am moom lañ ma juree moom laay deewaale incha allahu rabbihi nekkuma nag ennemi Bassirou Diomaye Faye nekkuma ennemi waa Pastef nekkuma ennemi Ousmane Sonko côté politique dañ ci doon wax ku nekk wax tey jii dañ doon wax ne que dëkk bi kumba am ndey kumba amul ndey falaay daanale dañ doon wax dëkk bi kumba am ndey kumba amul ndey souvent ñu ne Kaliphone day def lu ko neex te Marème Faye Sall la koy sove wala Macky Sall te mosut am fii ba ma wàccee yoon yoon dal na sama kaw mooy ba ma jëlee ab mbéj dóor ko jigéen yoon dal na sama kaw dëkk bii dëkk da yoon la muy nga bokk Pastef nga bokk sa Seck nga bokk Macky dama ni ku wàcc yoon yoon day dal sa kaw juge yi fi nekkoon ñoo fi nekk gendarme yi fi nekkoon ñoo fi nekk euh, euh, procureur yi fi nekkoon it ñoo fi nekk ku wàcc yoon rek yoon dal sa kaw yéen may dégg dégg naa ñu naan ay Mollah gën war na ñëw Sénégal waa na ñëw kay mais Mollah Morgun bu mu fàtte rek am na lu mu waxoon si benn jabaru benn sëriñ am na lu mu waxoon si benn jabaru benn sëriñ est-ce que taalibe yi sëriñ si fàtte nañu lu mu waxoon seen jabaru sëriñ Mollah Morgun bu mu fàtte waxoon na fi Viviane Ndour ak doomam ak Mame Boye Diao ak yeneen Mollah Morgun am na lu mu fi waxoon ñoom seex Yérim sek léegi bu Mollah Morgun ñibbisee si réew mi Cheikh Yérim Seck bu ko porté plainte demut fenn kon ñu xam ne la woon rek moo fi nekk ba léegi bu ko Viviane Ndour porté plainte la euh, euh, euh, amul suivi kon ñu xam la woon rek moo fi amaat kon ba léegi mooy li ngeen naan da ngeen ko doon xeex beneen bi Tunkara bés bu tegee tànkam Sénégal ñi mu tooñ ci Sénégal bi junni nit la bu ko ñooñu porté plainte bu demul rek kon ngeen dimbali ñu rek naan justice bi am na changement kon na nañu xam ne kon ni ngeen ko doon waxee rek kumba am ndey kumba amul ndey kay si foofu amul lu mu waxul sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké vidéo yée ngi fi amul lu mu waxul sëñ Muntaxa Mbàkke vidéo yee ngi fi amul lu mu waxul Baaba Maal ba di ko traité góor jigéen vidéo yee ngi fi waa Kayz Fof bu ñëwee Baaba Maal porte ko plainte nekkoon ko man vidéo bi nga waxoon góor jigéen laa bu yoon deful liggéeyam ndax di ngeen toog naan dëkk bi kumba amul ndey kumba amul ndey léegi daal bal bee ngi seen camp nanu xool seetaan a dàkk si ndaje man daal xam naa fi ma nekkoon démb ak barki démb fa laay nekk mooy bi ma gisee naka sudul noonu dinaa génn wax ko si respect saaga wala dul saaga ku seetlu Kaliphone ba mu gëjee saaga ay ati at la si ginnaaw mais samay dëgg moom bu dee dëgg dëggay tax nit dem kaso jàpp leen ni Kaliphone dina dem kaso parce que sama dëgg yi si laa judduwaale encore une fois pour ngeen xamee ko noonu donc yàlla na yàlla defaral ñëpp jàmm yàlla na yàlla defaral ñëpp salaam Bassirou Diomaye fay yen bi ñu ko jox Sénégal gii yàlla na ko attan yàlla na oyof tollu ci moom yàlla na fëriñ si wàññeeku yàlla na dugub bi wàññeeku yàlla na ceeb bi wàññeeku yàlla bu lacrymogène tàkkati yàlla na étudiants yi jàngi yàlla bu grève élève amati ainsi de suite ainsi de suite yow kii mu ngi naan yow demal liggéey man ba ma juddoo ba léegi maa ngi liggéey pourtant yéen a ngi gis ñoom Tunkara dañuy live du ngeen ne dem leen liggéey Azura bi nga xam ne gis nañ ko barki dem mu jël oto Bassirou Diomaye fay jël fulaar di ko nettoyer di fomp du ngeen ne ko demal liggéey mais bu dee Kaliphone la moom di nga ko ne demal liggéey mooy li mu leen di wax rek parce que bokkuñu camp léegi bu nu bokkul camp da ngeen di gis na ay ennemis lañu seen façon de faire la doo gis benn apériste di dugg si seen ay commentaire dinaa ndey xas tunkara wala leneen amuñu jot bi encore une fois de toute façon daal man si lu ma nekk maa ngi koy gëm maa ngi biir APR tey maa ngi biir APR suba incha allah rabbi hii nag APR moom waxtaan wax dëgg ci la ci tas bu métti la jëm mais bu tasee nag na ku ne xool ban leader moo la nar a amali ëllëg njëriñ nga ànd ak moom ban leader moo war a mën a taxaw ëllëg bu élection législative yi ñëwee ak mairie nga ànd ak moom de maa ngi APR bokkuma Sonko bokkuma Pastef mais signifie pas Sonko sama ennemi la signifie pas Pastef samay ennemi lañu sant naa leen gërëm naa leen dig daje si beneen live incha allah rabbihi jàmm si ñëpp big up si ñëpp encore une fois Adji bi saar bu sell bi mu ngi Sénégal gii këpp ku leen ne Adji bi saar dem na bitim réew nee leen ko na woo Adji Raby Sarr mu won leen appel vidéo mu ngi bitim réew wala na leen woo Adji Raby Sarr vidéo ñu gis man Adji Raby Sarr en personne je l'ai appelé vidéo démb ma gis ko ci weeru koor gi ñu nekk mu fu mu nekk sànq la mujj 14 heures cinq moom moom woo téléphone wax nañu 12 minutes maa ngi woon sama kër li mu wax dégg naa ko bés bu yàlla dogalee mu nar a dina génn réew mi dem tukki néew ma du tukki de bu bëggee tukki dina tukki parce que amul benn juge ci Sénégal bu ne interdiction de voyage bu Adji Sarr tukki du Ousmane Sonko moo mën a tere tukki Adji Sarr tukki du Bassirou Diomaye fay moo mën a tere tukki Adji Sarr Adji Sarr lu koy tere tukki mooy juge ba ca tribinal moo koy woo bu amee passeport am mu téye ñu ne ko interdiction de sortie territoire comme nuñ ko defee woon Pape Alé Niang comme nuñ ko defee woon Ousmane Sonko Pape Alé Niang du Macky Sall moo ko ne bul génn réew mi du woon ministre de l'intérieur du woon police du woon gendarmerie juge bi moo jëloon li nga xam ne mooy passeport am Ousmane Sonko du Macky Sall la ko tere woon génn réew mi juge be jëloon it passeport am ngeen xamee ko noonu benn aji saar bu bëggee voyage yi fu mu neex day jaar aéroport bu mu am gis naa vidéo ñii di nekk bitim réew di ko seerse naan hôtel bi la nekk ak hôtel bee la nekk bu ngeen ko fekkon si hôtel mi mu toog di ndékkiit du ngeen ko dóor du ngeen ko saaga du ngeen ko rey la plupart buzz ngeen si bëgg parce que Adji Sarr xam ngeen jigéen bitim réew Sénégal sax jigéen doo ko mbéj waxuma ak en Europe léegi bu ngeen gisoon Adji Sarr si hôtel boobu ngeen dem lan ngeen di def Adji Sarr da ngeen koy dóor te ngeen nekk dëkk de droit nga xam ne jigéen moo fa ëpp droit que góor Europe nga naan Adji Sarr mu ngi Suisse léegi ñiy def affaire de golo dem ci ay hôtel mu ngi chambre six ak mu ngi chambre douze ak mu ngi si kaw ak xoola buzz la ñu bëggoon rek def seen i comme ni ko gars yi yàgg di defee Sonko du wër Adji fu mu nekk jomaay du war aji saar fu mu nekk amuñu jotu aji saar yéen kaña gi nga xam ne nag sonko xamu leen jomaay xamu leen yéenay sonal seen bopp di ñu sonal ay waxu aji saar ak ñun dépassé nañu foofu priorité instant bi na ceeb bi wàññeeku yéen a ko waxoon mën ngeen ko yéen a dund bi dafa seer priorité bi instant bi na dawlin bi wàññeeku yéen a ko waxoon priorité bi instant bi universe étudiants yi fa nekk di buuxante wutal leen gannaaw suba université bees loolooy priorité bi courant bi cher na priorité bi mooy bëgg nañu ñu wàññi ko ba ñu xam ne ne yéeg ne priorité yi doxal ngeen ko mais pas di ñu tànqal di ñu sonal aji saar ak patati patataak mu ngi Suisse ak mu ngi Canada na dem ba fongale mi elle est libre sénégalaise la bu amee passeport am am visa am dafa libre amul ku tere mën a génn aji saar si mim réew citoyenne la comme tous les sénégalais comme nu ngeen di voyager ana ñi fi laqoon teer sëgëm ñooñu la ñu bàyyi aji saar dafay laq teer ana ñi ñu jàppee woon ay cocktail molotov ñu naroon rey nit sëgam ñooñu la ñu bàyyi Adji saar dafay rey nit bu la ñu sonal encore une fois wax ju bëri ji daf ñuy déranger na ñëpp nguuru si jàmm nguuru si salaam ñu ànd liggéey pour un Sénégal meilleur. li may wax nii nag loolu moo nekk si xelu ñi nga xam ne gëm nañu projet PASTEF loolu moo nekk xelu Jomaay loolu moo nekk xelu Ousmane Sonko mooy liggéey pour un avenir meilleur liggéey pour un Sénégal meilleur.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 gën leen a pànk ëpp leen xaalis ndax faatu ware dëkk yëpp wër na ko presque dëkk pays tubaab yëpp wër na ko ñëw toog xam nga kon kooku daa suur ba pare ne dégg toog jàppa njàmburam bu dee avion yi attachez bu votre ceinture moo leen ko njëkk a def faatu Wore ba muy attacé bu votre ceinture boobu yéen kenn xamul woon ne sax réseaux sociaux di nga dina am ba ngeen di ngali ngali Fatou Woré laa leen di wax de te mu nekk i rajo bu Boubacar Diallo ba Fatou Woré am na personnalité ak dignité fecc na ba ba toog ba rëgal di animé ci rajo yi te kenn mënu mësu waxal lu ñaaw Fatou Woré day dem Hollande foo xalaat ci pays européen yi dafay dem di joxe ay cours de danse xanaa kon kookoo waroon a réew xanaa kon kookoo fi waroon a nekk amee réseaux sociaux yi ndax ba muy lekk ba suur kenn lekkul ba suur ba muy naan ba màndi kenn naanul ba màndi ba muy encaissé ci million yi ken encaissé wul ci millions yi ba muy attaché bu boot ceinture kenn attaché wul boot ceinture yéen ñi nekk ci réseaux sociaux yi di di ko bëgg lembe laay wax nag gis nga nag Fatou wore xam nga daa sewoon dafa sewoon ba day ni kirdaa léegi nag ku ko tooñ bu la ba xëcc la ba nga ñëw ba ci moom dalay defal bagage nee na génn na nee na seen wax yooyu bu leen ko ci dugal ndax moom bu ngeen ko ci dugalee benn moo leen ëpp taat ñaar moo leen jekk forme ñett moo leen ëpp xaalis ñeent moo leen ëpp classe kon nag bu yóbboo na ngeen xam seen bopp rek te daal di génn ci moom Fatou Woré fecc na fu ne kilib bu ne fecc na ko attase bu bot seen pays bu nekk def na ko waaye boo gisee Fatou Woré modestam rek danga naan kii mosta dem sax ci dëkku Europe yi yéen da ngeen a cof la ma leen waxoon laa leen di waxaat yoru leen lu fi nit yoru da ngeen a cof rek di ngàlli ngàlli may leen nit ñi jàmm nag ëpp leen fi xaalis kenn ëpp leen fi kenn juddu bu dee juddu ëpp leen ko nit ñi loolu nag benn brefin bu ndaw rek laa ci doon wax ndax man loolu sax ñoruma tey li ma ñor mooy Tampico mi nga xamante ne mu nga jóge ba Fuuta yekk président bi mu yekk ko lu ne yow mën ngaa wax fii lu nekk Sonko wax ko Jomaay ah nga ne daal Sénégal la ñu nekk Sénégal da ngay jékki saa rek wax sa wax ju rëy après ñu daal di lay baal nga dellu siwaat yow laay wax yow moomu juge Fuuta li ngay yeg mag eh, kii yëpp li nga yeg eh, Sonko yëpp yeg ko Joomaay yow naka nga mën a ñëwaat de ne dangay dellu si yow Fuuta moomu yow tàmpikoo Fuuta nga bëgg na yow dangay bëgg a dellu si waat pour nit ñi baal la fu ngeen ko teg dangay yaakaar dangay génn wax sa wax ju rëy ba addina yëpp dégg la nga génnaat ne dangay baaluwaat pour dellu si waat waaye yéen hypocrite égoïste Sénégal ñoo gën a hypocrite égoïste dundu naa fekk ngeen di dund réew ngeen fumiste saytaane arrogante ñàkk kersa ay wax lu day ni président nga yegg ko fi njaaj man sax xam nga lu ma gën a bañ ci Sénégal président bi toog duñ ko respecté lu ne ngeen fi yegg makisal ay saaga nday ak wax ju ñaaw ju nekk ngeen di wax makisal Sall pour lan lan mooy président ñëw toog war a jiitar yi réew mi ngeen di ko manqué respect seen arrogant ak seen réew ak seen ñàkk éducation de base mi ngi noonu benn deuxièmement <laughs> Sénégal ñoo réew nag deuxièmement joomaay mi war a ñëw toog balaa élection yi sonko mi lu nekk ngeen ko yekk la ngeen ko wax yëpp duma ci jaaraat ndax man samay nopp noppi garmi la te man dama am éducation de base mais la ngeen ko wax yëpp yóbbu nañ leen waar ku ci nekk yóbbu nañ leen waar pour won la li nga doon wax gis nga nag Sénégal dafa soppeeku léegi xam nga ba njiit lu bees soppeekoo ngeen war a xam ne lépp a soppeeku amatul toog ci sa clavier ci sa téléphone wala sa ordinateur di saaga président ba ndey loolu jeex na fi bu ngeen yóbboo ngeen defaraat toogaay yi et loolu daf fi jeex de may wax tàmpikoo naan baal leen ma man kay maa waxoon lii wag lii maa defoon lii yow tàmpikoo nag yaa ñàkk jom yow ndeke jom daa xëy nga gont waaye nag dara bettuñu ci yow ndax fii la sa doom génn ne toppatoo woo ko yaroo ko faale woo ko yow boo joxul doom sa doom boo ko joxul éducation de base yow mën nga fee joxe leçon de morale parce que amoo éducation de base noonu ngeen di dundee amu leen yar amuleen benn respect nit da ngeen na arogo saaga président ba ndey loolu jeex na bu ngeen yóbboo ngeen defaraat toogaay yi et loolu daf fiy jeex de may wax tàmpikoo naan leen ma man kay maa waxoon lii wag lii maa defoon lii yow tampikoon nag yaa ñàkk jom yow ndeke jom daa xëy nga gont waaye nag dara bettuñu ci yow ndax fii la sa doom génn ne toppatoo woo ko yaroo ko faale woo ko yow boo joxul doom sa doom boo ko joxul éducation de base yow mën nga fee joxe leçon de morale parce que amoo éducation de base noonu ngeen di dundee amuleen yar amuleen benn respect nit da ngeen na arrogante ba pare doon ay nit ñoo xamante ne nii nuñ koy waxee sax nit nit nit ñu nit ñooñ nga xam ne ñoom dañuy tafu ci nit pour pour pour di dund nit dangay am la am personnalité ak dignité dem wuti ji loo liggéey moo gën seen yii ngeen nekk di def ku ñëw toog ngeen bëgg a tafu ci ginnaawam di ko ragal ginnaawam ba mu set pour am ci moom loolu daf fi jeex dem leen wuti lu ngeen liggéey pour Sénégal ga woon nga toog fa nga toog di saaga sa président loolu amatu fi dafiy jeex ma teel la ko wax ngay baalu ndax doo ñëwaat xam naa man moom man man nekkuma ca justice apolitique man ku ñëw toog liggéey ànd na ak yow sama yoon nekku ci man xam nga kan moo ma ñor ci réew mi Maria ma Maysa Biége ak Massa Issa Dieye Fatim Penda ak maa ñaan ma ne leen leneen li ci des sama yoon nekku ci waaye dama xam ne nit war ngaa am respect boo xamante ne yow ki nga xamante ne mooy sa président jiite la danga ko war a jox respect ak réciproque respect réciproque nag boo ko joxul sa ndey joxoo ko sa baay joxoo ko ña nga dëkkal doo ko jox yaakaar naa ne doo ko jox ñi nga xamante ne ñoo fi nekk waaye nag lenn dinaa leen ko wax ay saaga ndey yooyu moom <laughs> no yooyu moom xam naa joomaay ñàkkul fayda sax ba di leen bàyyi ngeen di ko def pour nag da ngay ñëwaat wala doo ñëwaat boo ñëwaatee sa ñàkk joma tax nga ñëw waaye kenn baalul ndax doo def sa bu ne weng ba pare dellu siwaat naan dañ lay baal nee naa la ma jugee foofu nag damay ñëw ci ayam daa koy aayam maa koy muy kan kura maki kura nag yow xaw ma nag yow lan ngay wax waa koñ ba waa koñ ba ak waa kër ga xaw ma lan nga leen di wax ndax sa wax ju rëy ji nga fi wax sa saaga ndey sa xeex bi nga fi xeex sa wax yu vulgaire yi nga fi wax yépp kura xaw ma nooy dellu si waatee nag boo ñàkkee jom nag ba dellu siwaat tamit amul benn problème rek dina la ubbil bu tey de waaye dinañ xam nu ñuy defeek yow dinañ la ubbil bunte yi waaye dinañ xam fu ñu yem ak yow ndax yow danga nga arrogante loolu moom xam naa ko respecté leen seen njiit yi leen jiite respecté leen seen njiit yi leen jiite ni dangay am respect ak réciproque bu ngeen leen respecté wul nag cybercriminalité gaa ngi fi escalier ya moom gudd na balaa ngaa yegg ba yegg ba ca Musa Jàllo <laughs> sa tànk yi metti gi muy metti rek loolu rek yaakaar naa ne di nga looy wax di nga ko xam wala looy def ci président bi di nga ko xam e eh, ala kama sala naxira atoy sa sabali bref eh, nee naa la koor gi lee mu jeex ñi nga xamante ne dañoo ñàkkoon jom wooruñu ñi doon génne seeni feebar naan dañoo feebar ñi doon génnee seeni jàngaroog yépp ah kor gi de lee mu jeex moom li ci desati moom daanaka bëriwul am na ñoo xam ne daawuñu woor ak ñi doon woor wooru gàlle ñi ne woon dañu am ay estomac ñi ne woon dañoo am ay ulcère ñi ne woon dañoo am feebar yi ak yii yépp koor gi moom lee mu jeex waaw daanaka ñu ngi ci fin bi ñi nga xamante ne ñoo ngi ñu ngi doon woor nag yal na leen yàlla nangul seen koor waaye defal leen jàmm ak salaam ndax ne naa la Sénégal moom <laughs> bu dara ñëwee rek dangay gis dañu ciy soobu soobu goo xam ne ci début bi noonu waaye nee naa bu lépp jàllee rek da ngay gis ne yiñ doon def noonu yëpp ah daara nekkalu leen ci dangay gis ñoo xam ne sax ñu woor waaw nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci kan idaali idaali yow nit ku baax nga nit ku baax nga bokk ci famille bu baax ba pare sëriñ Saaliw Mbàkke di sa sëriñ gis nga nit euh, liñ naan nit euh, bu la weqee nga weq ko yéen a yem délégué Amar bu ko topp parce que ku ci nekk rek sa jikko ak sa sa sa jëf lala yàlla di fay mais nit du dugg kaso yow sama xarit nga ndax man jàpp nga ci sama carrière ba may débuté Idaly jàpp nga ci sama carrière ba may débuté bu baax a baax a baax nit ku baax nga vraiment man duma musa wax ci yow lu ñaaw ndax nit ku baax nga njuumte nag mënut a ñàkk gisnaa naa la génn nga di baalu euh, loolu yëpp baax na mais bu mu la dalati parce que nit bu nekkee ci naqar ak lu mu munti doon rek mu ngi mel ni nit dee nga ñëw naan ñaw dama ko yéene dee loolu baaxul même bu fekkee lu bon la nekkoon di def sax bul ko ko yéene yow ni nga mel bu ko sa xol bu ko kenn yàq xam nga am na ñoo xam ne dañuy juddu baax mais dañuy dem ba yàq seen xol bul bokk ci ñooñu yow bu kenn yàq sa xol baax lañ la xamee baax ak liggéey man xam naa la bu ma la xamul woon ma wax ci yow mais dama la xam nit ku baax nga nit ku bokk ci famille bu baax ba pare nit ku am personnalité ak dignité nga bul yàq sa ko ndax ak lu mu munti demee délégué Amar comprendre nga bokk na ci waali ci benn côté te man lu bokk ci Maria Yacine may sa biige rek dama koy fonk ndax bu nekkul woon tey fan su waali wala wala wala jegewul ci waali man sama yoon du nekk ci moom ndax man bugguma kuy dégré nit wala nga koy déstabiliser wala ngay wax nit lu ñaaw man bugguma loolu donc délégué Amar na delluwaat ndax nit da ngay da ngay am personnalité ak dignité man damay xeexal Wally Seck de damay xeexal damay jàppale Wally di ko xeexal mais nag sama bopp ma la génnal bañ naa la de du ma fi wax loo xamante ne nii damay xeebulu wala may dem ñu may dugal kaso ndax bu ñu la dugalee ca kaso bee du kenn ku lay ñëw di la fa fekk déedéet buñ lay yóbboo kaso amul kenn kuy ñëw di la fa fekk kon wax ji nay rafet nay na ñuy bàyyi doomu aadama yi nga xamante ne dañ leen di sosal aw sos baaxul te aw sos mën naa rey gor ndax yenn saa yi nga waxal nit wax joo xamante ne nii wax ja nekkul ca moom mais day ñaaw ñaaw goo xam ne ab noonam da ko koy xoolee di ko reetaan fekk la nit ka wax sax nekkul ci moom kon délégué wax dëgg fa yàlla ah gis euh, daan naa la seetaan ngay wax ci waali lu rafet man xam nga man waalee ma ñor bu ma gisul woon ngay wax ci waali man sama yoon du nekk ci yow mais comme dama la gis ngay loon wax ci waali donc moo tax ma lay ñaanal rek foo fee nga nekk rek nga daal di fay gaaw génn dellu siwaat ci sa liggéey te boo fa jugee nag bul delluwaat ca la nga defoon rek ah ba yet bi dal sa kaw waaye idaali maa ngi lay wax yow tamit seen caali Demba Seen taalibe Sëriñ Saaliw Mbàkke boobu bul bul bul bul defati lu mel noonu njuumte nag du ñàkk mais loolu moom maa ngi lay ñaan rek bu ko defati ndax baaxul nit kenn du ko yéene kaso kenn du ko yéene dee waaye kenn du ko yéene feebar nit ñi nag na ñuy def seeni tuuxi duna di def seeni ñaawteef yow nekkal ci li nga nekk rek nekk ci sab liggéey ndax wal wax dafa metti dafa nekk loo xamante ne nii bu xasee génn sa gémmiñ ba dee ba dem rek bal lay doon doo doo ko mën a tey jàppati mais daal maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam ku ci nekk nga yéene sa moroom jàmm la nga yéene sa bopp yéene ko sa morom ndax yàlla jëf rek lay fay sama vidéo nag xoola bere fag yàqay ti mu laanaa waru ko woon a am Fatou Woré daa màgg léegi te daa amaw taat moo ma ëpp sax taat léegi moytu leen ko yéen influenceurs yi ah doy na waar